solution. yow dañu dee si nekk waaye bu nëbbee rek xew man de waxuma sax famille mais monde bi yëpp dinañ ko sama nijaay moom waxuma ay waxam ay moom daa lekk moom daa wax ba sax nga ma gàcce dem suuf ginnaaw nag am am na ba pare. am na lay si géej xool samay mbokk xam ne nee woon na lii dali xel la bi ëllëg yow yaa ko dara du tuuti waaye yéene sama séeréer bis ni ki tey waat naa ne tàggalikoog naag bisu àdduna ak àllaaxira yaakaaroon naa li nga def nii dama ko def ñëpp ba mu des man ma am ci yow confiance ñëw wax la sama secret nga may wuli bande waaye gis nga olof nga dañu ko nit nag dafa lëndam bala maa dee nga nekk ci biir la sage alors que yow vrai vipère man du ma sa morom est que yaa ngi may dégg nga def yaa ko teg sa bopp nit ñi defuñu la dara yaa wasaare sa bopp ba la dal dal donc bu ma amee rek précisément yii nii jàkka ko leen saf man yow xam nga bu baax li may wax gis nga information bi yow kese yaa ko xamoon soit yow yaa ko publier wala soit yow yaa ko joxe pour mu publier ko waaye jàpp ko def. dangaa ba que Ndioufane deful dara waaye nag mu des man bu la neexee nag tu peux continuer à berner tout le monde sauf man te gis nga nag ma yow. nga man te defaguma dara te yow depuis sax yow kuy sa bàyyi doom sa doom kan moo ko jur yow li nga fi nekkee xam nañ ko di yow chaque weekend nga encaissé quatre trois cent mille di jaay lu amul nga teg ko fan yow yoroo sa baay yorul nga bëgg a sol lu cher te yoroo da ngay régler moo tax lu raw bii di ko indi. yaa tooy. ah ah loolu nag fekkuñu ko. chère cousine. pardon maa ngi lay yow bi mooy metti nag. waaw Bousso. yow am nga nelawaay. yow man mi nga xamante ni sax dara daluma samay nelaw daa jeex. li mi def moom. man bettu ma ndax man la bokkal ndey ak baay wante xam naa ko bu baax yéen ngeen yéen a jël mami noonu def ko seen bopp. man génnewuma ko ci benn yoon ndax xam nga ni yow waxook man mami nga waxal kon bu du mami kan la. man de mami dafa ma sa def équation kër gi ñëpp dañoo yaakaaroon ni que yow yaay bi moom mooy sage bi waaye nag instant man li ma gën a métti ci mami mami yéen ñëpp dangeen ko jox confiance bu mu mat. wante yàqu ngeen ko nag mami. du moog yow man ak moom la te bu ko bàyyee dara dara dara fu mu la woon na nga ko fa wuyu du ma nangu kenn di la wili bande te fu mu joxeñ rek nu dagg ko bu ko bàyyi benn yoon. man daf maa bett tellement que instant yii j'arrive même pas à comprendre que lii mami moo ko def. waaw wuy ma yow lan ngay ragal ma nekk sa ginnaaw. foo pikiroo ma naan fay doom dee ko sàmba saañaa ba mu mat ndax ñun dañoo ñeme lu métti dañuy soccoo courant di galantikoo acide te duñu dee mami fu mu la woon wuyu ko fa. waaw baax na. xam nga fay lamp bi. moo gën sa mbóot bi sax day may tëdd. su ma sa doon ko mujjee. Nijaay namm nañ la lool namm nañ say waxtaan namm nañ sa ambiance daanaka xàmmeetuñ la jege nga ñu lool waaye daa mel ni danga ñoo sori ndax sa yoon nekkatul ci kenn te ndijaay ak lu mën a xew ñun yow lañ am yow lañ xam te yow lañ miin boo xëyee yaa ngi tëju walla yaa ngi toog ci sa sijaada jàpp sa ñàmbur lekk gu bari sax defatoo ko suñ ndijaay bi ñu daan gis démb ak bërki démb moom lañ bëgg a gis tey waaye gis nañ soppeeku lool lool lool ci sa digganteeg ñun mooy lijjanteetoo kenn danga bàyyi lu waay def sa bopp te loolu mën nañoo gaañ. jërëjëf Singo. bëy bu màttee du jukkoon kon bu ko defee rek sës na man awma lu dul yéen may génn si biti di déglu ay kàddu yu ñagas ñu koy jëmale si yéen du neex. naa deret ji benn maag seen yaay ñoo bokk ndey ak baay waaye nag lu ay bët gis du tee xel danget saa yu gillee xasaw la say xol di yëg ca xam na ko gémmi na sa maandu sama wax tegoo leen ko woon fenn du lu ma wax ngeen sama nijaay dafa bari wax fekk seen jàmm rek laa leen bëggal xoolal bu sa tay mi ngi nii ëmb bënd ngeen di sii toogul benn yoon nem kii moom ëmbal mënatumaa sigg jàkkaarloog sama benn mbokk ndax yey nan ma sama benn mbokk di ko yedd naan ko lii baaxul ndax kuy digle ca ngaay boo war na fekk nga sangu ba noppi waaye mënatumaa seet seen kanam ndax bu sa tilimal na waaye nag sama xel dal na ndax biir na ma ni ëllëg bu ma wuutoo di nga mën a toog fii ma toog at yi nag néew na waaye xel mi màgg na yàlla yàlla guddal sa fan. amiin di jaay jërëjëf ndax lii mënoon na la cee bañ a fekk mën ngeen ay kàddu xale ya rek waaye nangu daa jël cëru bañ. waaye nag dama lay xamal rek ne buso bonul te nit ki booy xool ci moom lu tilim doo gis ci moom lu set tilim tilim ba rek ngay gis Bousso ñun ñi ay mbokkam sax bonuñu waaye nag yàlla rek a dul juum xëñ na xelu xale ko jàpp te keneen kum doonoon yow li ko dal mën na laa dal mérité na sa ñaan mérité na sa conseil mérité na nga koy xelal di ko dooleel di ko dolli comme ñun niñ ko mérité ci yow. Cinco lu ma leen sant bariwul de sant leen leen lu dul ngeen fonkal ma soow mi soow ñuul jigu ko ndax soow lu sa ñuul bokk si firnde bi mooy barki Demba Ndiaye Masaalikul Jilaan ba ma génnee sama kër gi ne coow jël oto oto bi dawul ñaar fukki mètre. daal taxaw ndax mënatul dem mënatul dikk ndax nit ñi ma daal di yegg ba waxtu julli jot am na julli ñoo xam ne amul woon fu mu taxaw pour julli suñu mbokk catholique yi catholique catholique jërëjëf si jibbante bi ñoo ibbi seen barab jox na ko pour ñu julli fa nga xam ne Sénégal gi genn bopp la kenn mënu koo xarñaar ñaar si barke seen Mountakha Mbacké ak si tegginu Macky Sall si yaram daal di ñokkat fa mu jóg jox papaam loxo ñu daal di ànd juboo mu daal koy dugg si loxoom indi ko biir këram teguñu si ñetti fan xalifa Sall ñu may ko liberté mu dellu si ay njabootam remise de peine waaye nag nit warul fen boppam lépp lu may def dama bëgg mu jóge sama biir xol ndax bu dalee ci moom mu am si yërmande suñu borom fen sa bopp weesuwul nga nekk sa kër ndey nekk sa kër baay di léttu ak a xeesal nga war a dem seeti beneen barab ñu la fii nii ngay ñëw bul fi léttu bul fi xeesal nga daal di bàyyi lépp luy diw nga bàyyi lépp luy mees dem dëkk boobu boo ñëwee del si lu nga nekkoon loolu fenn sa bopp la waaye ak doon neex buñ demee noonu ba noppi bu ñëwee ñu continuer loolu seen biir kër yi ndax sanga mbott du bari ndox gàtt xel xel. ak yaa tax. balla ma ca ngay dama yab ci sa xaaram te laaju paas bàyyi bas ak hmm. ma ca ngay dama yab ci sa xaaram te laaju paas sëñ bàmba bu daan xoolee hmm. daawul gërsoo bu daan xoolee xel xalaatu ko bëtu nday jër du jàllan du la musal du xoolal doom si ngoom xanaa xama Sëriñ Tuubaa daf ne ces jumaay Tuubaa indi na ko fii si Ndakaaru ah

yaa man jël la an xawadin irham al wara yaa xaadiyan radda ah, maawtana xana xul xal bu min dara din bi jaay afdali man bi ma isaawa asxaana xaat fajaa bi lillahi xaat la jaa bi rabbil karim حمد لا شريك له وسعديا يمن عن ساتي أملا محمد صلوات الله في أبد عليه في حزبه كل به كلا أبو إلا إلا لجلة الحقيق من يختار من براء نجيت جلاء وكرمني تكريمها دين وكل لها بريئا هدوء متى مستعان